chers internautes de Info Rewmi dal leen ak mu ñu am mbégte saa su ne di jàkkaarloo ak yéen xibaar yi mujj ruus euh, fii ci suñu réew naka noonu démb kii di Dieyna balde doon rek euh, tudd euh, doomam bu góor dañuy daal di rek dellu siwaat ci dossier boobu Dieyna balde sénégalais yu bëri daal di koy xam rek à travers émission bii di seen Petit Gallé moom nag mu doon représenter la région de Kolda ci noonu rek la ko ñu bëri daal di xamee waaye it ñu bëri ci ñun tamit xam nañ ko à travers son boobu rek mu defoon génne clip bi daal di koy tuddee baabam moom nag ak Abiba ñu ngi benn concert bi nga xamante ni rek Abiba dañ ko invité woon euh, foofu ca Kolda mu daal di rek euh, gis euh, talent bu baax a baax a baax ci kii di Dieyna Baldé daal di rek proposé papam mu daal di jàppale kii di Dieyna ci noonu la Diop Isaac daal di rek proposé ay parents am mu daal di ñëw fii ci Ndakaaru dal fi mën continuer ay jàngam waaye def carrière ci li nga xamante ni mooy musique ci naka noonu nag bu yàggul dara ñu daal dégg scandale ci ñaar ñiile kii di Dieyna Baldé xamal la ni rek Diop ISEC da ko daal di rek teg lor ba pare daal di koy bañ naka noonu nag euh, Dieyna Baldé daal di rek porter plainte ki nga xamante ni mooy Diop ISEC ci noonu lañ ko daal di rek euh, daal di entendre foofu euh, ci brigade des mœurs ñu daal di koy déférer jamono bi pour détournement de mineur incitation à la débauche suivi de grossesse Diop ISEC nag xamle woon na ni que dafa bañ ay responsabilités am ndaxte rek dafa daal di rek tegul lor kii di Dieyna Baldé ci naka proposé woon ko ñu daal di def li nga xamante ni rek mooy test wante démb ñu daal di rek am mbetteel lool bi ñu yegee ni rek kii di Diop ISEC dafa daal dem rek yónnee délégation ñu daal di dem rek tuddal ko doom bu góor bi nga xamante ni moom la Dieyna Baldé daal di rek am euh, samedi quate avril la ko daal di accouché démb doon tudd bi mu daal di koy tamit euh, tuddee ki nga xamante ni mooy euh, Seydina li liñ ci gën a jaaxal nag mooy ana lan moo tax rek Diop ISEC daal di tuddee bii la doom Seydina Fall Bougazeli Seydina Fall Bougazelli nag pour ñi ko xamul euh, moo nekkoon euh, député fii ci Sénégal nekk responsable APR foofu sa géejawaay daal di rek am ay jafe-jafe ak justice yu Sénégal ci mbir wàllum faux daal di koy rek euh, déféré ci prison bu Cap Manuel jamono bi nag muy partagé cellule ak ki nga xamante ni mooy Mamadou Diop ISEG question yi ñuy posé wu jamono bi mooy seen xaritoo ñoom ñaar dafa jiitu laata ñuy tase foofu ci prison bi wala rek ci prison bi lañ daal di rek xamante ndaxte defe naa doom jur bu ko am bu ne rek boo koy jox tur diñ ko jox koo xamante ni euh, sori na lool euh, ci yow ba tey ñuy laajte rek négam euh, test ADN boobu jot na antu wala kii di Diop Isaac rek dafa doon ruube li nga xamante ni mooy sénégalais yi xamoon na ni depuis le début moom rek moo jur doom bi nga xamante ni moom la Dieyna Baldé daal di rek accouché li leer ba wóor doomu Dieyna Baldé démb tudd nañ ko jox ko turu Seydina Fall Bougazelli ginnaaw bi nga xamante ni rek Diop Isaac ay mbokkam rek daal di nañ dem tudd bile xale jamono bii nag sénégalais ñu bëri daal di ŋàññ rek ki nga xamante ni mooy naa bi nga xamante ni démb dañ ko gis euh, ci réseaux sociaux yi mu publier ay photo ak ay vidéo moom daal di wane ni mu ngi ngénte ngénte maanaam yëf yi daal di safu ko wala fàtte na ko doon na loo xamante ni féete na ko ginnaaw ci bi nga xamante ni aussi euh, jamono bi Mamadou Diop Isaac rek moom mu ngi foofu euh, ci prison bu Cap Manuel di rek euh, taaxiirlu ñu daal di rek euh, atte ko ginnaaw bi nga xamante ni rek Dieyna moom porté na ko plainte pour engrossement et refus de paternité jamono bi ñuy laajte rek ndegam Dieyna Baldé ak ay mbokkam ginnaaw bi nga xamante ni Diop Isaac yónnee na rek daal di tudd ki nga xamante ni mooy doomu Dieyna ndegam dinañ rek bàyyi lépp li nga xamante ni rek ñu ngi ko ko doon toppee ndax euh, bu ñu fàttalikoo jafe-jafe bi yëpp li ko indi du lenn lu dul Diop ISEG dafa daal di rek bañoon reconnaître paternité doom bi nga xamante ni Dieyna Baldé moom rek la daal di ëmboon. jamono bii nag ñu ngi xaar fu wànnent di mujj rek ak bëtam li lañ leen indi woon euh, ci xibaar yi nga xamante ni rek ñoo mujj ruus fii ci suñu réew di am mbégte ak kontante saa su ne di jàkkaarloo ak yéen di leen jox dig daje très